di leen ziyaara di leen ndokkeel di ko tàmbale ci sëriñ Muhammad Abdullah mi ilimaani béréb bi ak mbokk yi nga xam ne ñooy taxawu akademiyatu Minane Baaqil Qadiim sëriñ Cheikh sëriñ Muhammad Muntaqa ak mbokk yépp di nuyu baax sëriñ Abu Chouaïbou sëñ mohtar di rafetlu kaddu yi ngeen yëkëti amna solo lool ci leeral li nga xam mom lañ bëgg a ñi ngi nokkel bokk yépp ci weer tedd wi ñu nek bis bu tedd bi ak bërepp bi yaakar yi ci aju bari lool yalla yalla dëggal di ñaanal bu baax Cheikh Muhammadul Muntaqa mi sunu borom dogal mu nek ci kanam njaboot gep ñepp diko ko ñaanal suñu borom sam ko wëral ko àggale ci mom naal yépp yu gañu baxi nalon euh, serigne abou waxna wax bi ci anam gu leer misal nako misal mo xamne it japp na ne ku ko deg du jar ñu lay leer laatal liñ bëgg a wote non mu ko waxe lepp lu ma sa jog bu yagge lu ci bokku rax ca waaye noonu mu ko wax it naka jëkk am na ñoo xam ne seen liggéey mooy loolu di rax di ruur mbir yi ñu fexe ba di ko xam xajatle di ko xàmmee nit ñi mën a jàll mën a mucc ci yooyu mu mel ne académiyatu minanil baaxil xadim ndigal loolu lañu am ba saa su nekk ñuy woote jataay yu mel nii ramadan bu dikkee ñu ci profito di tànn tomb yu mel nii ngir layante ci biir ak mbokki jullit ñi kon yàlla yàlla fay leen noonu ko sëriñ Abo waxee nag mbir mënoo xam la ca dugg te xamoo lu mu doon kon li ñu njëkk a def mooy fàttali nit ñi wooteeb sëriñ bi lan la su boobaa daanaka doon na doy sax bu noppee nga xam ne lu wuuteeg loola rek bokkatul ci woote bi wooteeb sëriñ bi nii mu ko waxee wooteeb lislaam la sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ndigalul yeesal diine te jaaree ko ci tarbiya la amoon rabbi asxaabaka bil himma ndigal loolu la jotoon yeesal diine te jaaree ko ci tarbiya kon diine jàng fi woon nit ñaa ngi ko doon dund am yu ci manqué woon yoo xam ne ci barab yu bari boo fa demee yëg ne am na lu manqué ci ni ñu dunde diine moom nag sunu boroom bëgg a dëgëral ci moom diine yeesalaat ci moom diine tax mu jox ko ndigalul tarbiya tarbiya nag mooy nit ñi li leen ëmb nga fexe ba lépp ñu bàyyi ko xel bàyyi xel seeni xel bàyyi xel seen ruux bàyyi xel seenu yaram loolu mooy tarbiya gu mat gi nga xam ne boo noppee ci nit ki li taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf dana ca nekk nekkin wu rafet loolu la ndigal la jotoon liggéey ci liggéey bu am solo mu am jeexit yu rëyit loola mu mujj nekk at tariqal muridiya kon wootee la boo xam ne woote bi lislaam la dara génnul ci diine lislaam ji nga xam ne sunu borom nee na moom rek mooy diine moo wax ne inna diina indallahi lislaam kon li jiitu ñu war koo xam sëriñ bi andiwu fi diine ju yees indiwu fi it lu wuuteeg la yonent yàlla muhammad yëkkati woon ca makka ak madina yar ci tasaare ko bàyyi fi woroomi xam-xam yi ñu wuutu ko ci sëriñ tubaa ñëw bokk ci ñu gën a mat ña ko wuutu ci lool taxawal ko diine kon wooteeb lislaam ku ko dëkkal feneen dëkku fa képp ku ci dugal loo xam ne it safaanoon ak li lislaam di woote yaa ci boole waaye sëriñ bi euh, boolewu ci woon loolu kon woote bi lislaam la du jeneen diini ci biir lislaam ji woote bu tegu ci sunna la it nag sunna si yonent bi aleyhi salaatu rek rek la doon yasalaat ndax yoon wi diine ji moom yàllaa ko moom yonent yàlla aleyhi salaam la joxe nit ñi ne leen jaar leen ci moom ngir ñëw ci man gis ngeen sëriñ bi ci géej gi ci bato bi dénkaane boobu mu dénkoon mbokk moomu ko daje moom nga xam ne ci la xame woon ne Gabon la jëm ba mu ko laajee dénk bokk na ci la ko waxoon na nga jaamu yàlla ndax ku jaamu lu dul yàlla bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek mu yàlla waaye na ko teg ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax boo ko ci tegut bis dana ñëw nga xam ne Muhammad rek mooy rasulullah kon moom woote sunna la woote woon nazaafatuhu kulli min allaghwi taharat wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu sunnam rek rek la fas yéene leeral ginnaaw bu mu xamale nañu lislaam la diinun siwa islaamihi la yuhamadu inda al ilahi wa bihi jaddidu sëriñ Abo wax na ko léegi bayit bu solo woo xam nee na ñi mu ma woo ñëpp ci yàlla laa leen jëmee ñépp ñu ànd ak man ci yàlla laa leen jëmee waaye nag ci alquran ak sunna laa ko jaaree ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadatni saraftu lkulla wal qalbu xaashiu kon woote yàlla la doon wooteel woote bu mu teg ci alquran ak sunna di jëfandikoo alquran ak sunna ci ay ndigalam ak i tereem di ca bàyyi xel lañ ci war bàyyi xel lépp waaye it wooteeb tasawuf la tasawuf mi nga xam ne mooy tax jëf yi nit ki sell mooy tax jëf yi nit ki ñu mën koo nangu fi borom mooy tax mu mucc ci li yàq ay jëf ndax jikko yu xeebu ak yu demee noonu waxoon nañu ne lillahi adu bi tasawufi maa makaarimi alaxlaaqi wa huwa samia yàlla rek rek lay wooteel waaye nag ci tasawuf laa ko jaane tasawuf mi nga xam ne moo ànd ak makaarimul axlaaq kon wooteeb jikk yu tedd la wooteeb ay teggin la wooteeb rafet jikko la loolu bokk na ci li tënk wooteeb sëriñ bi waaye nag wooteeb yeesal la gaa ñu baax ñi fi jaaroon wuutu woon yonent bi alayhi salaam kenn ku ne bay sawaar sa kem kàttan ba sa liggéey mat nga dem sëriñ bi dafa ñëw yàlla dajale ci moom yooye woote dajale ci moom mu ñëw nag di yeesal loola moo tax fu lu baax masa am sëriñ bi dem na fa luntu na ko ba jot dajale ko nag indil ko njaboot gi tawaali fasaadaati ujaddidu naasihan li wajhi alladi ala midaadi yowmil qami nee na taalifi samay sang yi fi jiitu woon nga xam ne ñi jiitu woon ci tool bi doon ci liggéey la jàpp ne ñoom ñooy sàkkam mu ne nag lañ fi bàyyi woon moom laa ñëw di ko yeesal te gis ngeen ci njëlbeenam téere yi gaa ñu baax yu bari defaraat na ko yeesal ko leeral ko njaboot gi tàmbule ci jàng seen diine ba ni mu demee ba weesu yépp nag ba indi loo xam ne moom yàlla ko jox mu di ko jox nit ñi waaye kon dafa wéeru ci ña ko jiite woon kon doonut woote boo xam ne dafa ñëw ne dara mosu fee baax man dog maa baax ah kay ñu baax ngi fi woon lañ tabaxoon ba mu dikkee fañ yamoon foofa la sof euh, mab mab yi amoon ci seen tabax ya mu raxaat ko toj toyee mu yeesalaat ko yokk ko nag ba mu àgg foo xam ne àgg foon fa mu waroon àgg fépp te àggu fa ñëw àggale ko foofa loolu mooy wooteeb sëriñ bi kon ñu baax ñi fi jiitu woon ay delluwaay lañ ci sëriñ bi moo tax ngeen dégg muy wax ne samay sëriñ samay sëriñ man mooy Cheikh Abdul Qadir Jilaani Cheikh Ahmad Tijaani Cheikh Abul Hasan Ashadali mashaayix yi Sayyidna al Jilaani wa Ashadali maahu Tijaani ci sharia it kàngami xam-xamu fiq sharia mu ne ñoom ñoom ñëpp ñooy sama imaam samay royukaay lañ ay mati fil fiqhi Malikul Ali wa Shafii wal Xanafi wal Xambali Euh, mashaayixi sayidna al jilaani wa shaadali maahu tijjaani kon kon ci tasawuf kàngami tasawuf yi ñooy roy waayam ci ñoom la jaar ba àgg fa ñu àggoon am la ñu amoon boromam séddu ko yaa ci jaar la ko ci yonent bi alayhi salaam la mu seddoon ñooña kon ñooñu mu jaar ci ñoom warmaal na leen sédd leen i cër waxtu wu ne mu leen di ñaanal saa bu leen tuddee ñaanal leen ngërëmul yàlla ko njëgaleem loolu mooy watab sëriñ bi tënkoon tënkoon na ko nag ñett ñetti kenu ñetti wos yu ko téye mooy gëm yàlla ak lislaam ak lixsaan ponki ponki diine mooy woote bi al iman wal islaam wal ixsaan te loolu moo ko waxal boppam usul tariqati al imaanu bi tawxiidi wal islaam fiqhi wal bi tasawuf kon ñett yooyu ku ci mànkil benn mànkil nga wooteeb sëriñ imaan la bu dara ci imaan manqué wàcc nga la yoonu sëriñ bi tëdloon islaam ji bu manqué wàcce nga yoon wa bu tasaw manqué wàcce nga yi ndax kenn buñ ko waxee mooy loo xam ne su mabbee mbir ma mabutit duutu am njariñ la doon njariñ te yooyu mooy asaas asaas yi lal yi lal yoon bi ñooy fondement yi ko bu taxawut bu ci benn bu ci mabbu rek mu fencal mbir ma fi mu doon jaare nit ñi nag comme dafa ñëwoon di tarbiya dafa tarbiya nit ñi ak ah, ginnaaw bu amee ndigal loolu fekk doomu aadama yi di ay jullit am waaye am nag ñu manqué ci ñoom dëgg dëgg jullit desoon na ndax bari woon lool ñoo xam ne bu dee xam-xam am nañ ko bu dee jaamu yàlla ñu ngi koy def waaye jeexit ci xam-xam ak jaamu yàlla war a am ci nit nag bari na fu manqué woon moom nag ndigalam moo doon ñëw mott li loolu mu daal koy jaare nag ci xam-xam bu am njariñ ndax gisoon na ne xam-xam bari na waaye du yépp am njariñ moom dafa tënk ne xam-xam bu am njariñ lañu war a wuti woote bii ci xam-xam bu am njariñ la ko teg kon bépp xam-xam bu am njariñ di rafetal diggante jaam bi ak boromam di rafetal diggante jaam bi ak moromi jaamam mu war dunde xam-xam boobu ci wooteeb sëriñ bi la bokk sëriñ bi da doon dundal di ci woote waaye ak jëf ju jëf ju yiw lépp lu jëf ju baax ci biir wateb sëriñ la jëf ju baax nag jaamu yàlla moo ci jiitu li jaam bi ameel borom muy xaq ju ko yàlla gàll mu war koy joxe saa su waaye jëf ju yiwit liggéey fàggu lu lew ngir mën a yor sa bopp mën a yor sa njaboot mën a bokk ci ñiy taxawu lislaam yi jëf ju yiw la bokk waaye xitma it jaamu yàlla ci jaamam yi taxawu nit ñi liggéeyal nit ñu baax ñi loolu lépp ci al amalu saalih dugg yooyu mooy wate sëriñ bi bu loolu jàllee nag ak al adab al mardi jikko ju rafet teggin yu ñu gërëm wooteeb sëriñ bi ñett yooyu moo ko lal xam-xam bu am njariñ jëf ju yiw teggin yu ñu gërëm ci teggin nag day dox diggante nit ki ak boromam am na loo xam ne ñàkki teggin sa boromam saa boo koy def saa boo koy def waaye day tax da ngeen diggante ak ñetti nit ñi ko wër ñi ko féete kaw ak ñi mu féete kaw ak ñi mu tolloon lu ci nekk sëriñ jàngale teggee ne ci jàmbi waraam ak sax yi la wër te du ñu nit bàyyi xel gii bàyyi xel yàlla ci mbindeefam yi ne ci kaw suuf du ñuy nit waaye nag am nañ ay xaq loolu lépp la sëriñ bi tënk mu yoon kon yoonu xam-xam la yoonu jaamu yàlla la yoonu liggéey la liggéey bu bu tegu ci yoon waaye yoonu taxawu jaami yàlla yi la amal njariñ jaami yàlla yi di jëf ci ñoom ngir yàlla waaye yoonu nag sàmm ay teggin sa digganteeg li la wër lépp yooyu moom la sëriñ bi taxawale yoon wi liggéey ci yar ci ay nit ñoo xam ne diir bu gàtt soppi na leen bañ mel ne ñoo xam ne histoire xamutoon ni mel noonu ci jamono ci diir bu gàtt boo xam ne bu ku jàng Minanul baax Qadiim wala Irwaawu Nadiim bi sëriñ Aboo daan wax léegi te seetlu ko danga xam ne sëriñ bi fi mu jaarale woon mag ñooñu yoon wu diis wu tar la woo xam ne ngir la mu ñu mel ni loolu li muy tekki mooy doonatul mbir mu yomb sëriñ leeral xiifal bu metti sikkar gu tar bu dégg ba cëg liggéey bu metti ndax nee na yëg na ne fi mu nekkoon nit ñi dañoo bindoo tayal te ak tayal nag nit du ak fen mu bëgg dind ci ñoom tayal nga xam ne kon liggéey bi mu doon liggéeyloo doon toon ngir wut alal doonte wut alal am na njëriñ ndax mën nañ ci liggéey lislaam waaye la ci jiitu mooy dind ci ñoom jàngoro yoo xam ne bu nekkut bu dañut duñ mën a àgg fuñ bëgg àgg kon muy mbir moo xam ne euh, ci coono ak i tiis ak i tartar ci la leen jaarale xoolal mag moo xam ne ñaar fukki waxtu ak ñeent yi kubéeruk satal ak ndox lay mos léeg-léeg ak benn danku baraay benn danku baraay loolu sëñ Mbàkke Buso nettali na ko soxna Faati ji ab taawam nettali na ko ne loolu sëñ bi daan ñoom loolu te du ne dafay manqué woon de nee na booba xéewal yaa ngi fi waaye ñi yar seen bakkan di leen defar na moo laajoon loolu kon danañ xam ne sëriñ bi fim doon jaaralee nit ñi nekkul lu yomb loo xam ne nit ki day xëy xëy rek ni àgg naa ci mu jeex waaye jihaad la jihaad la bu metti ma te mooy jihaad di gën a tar ndax bakkan mi ngay xeexal dafa laa jege te not ko jafe kon loolu baax na ñu xam ne kon woote la boo xam ne doonutoon lu yomb ñi wuy suwoo nit nañ xam ne ñan lañ ay boromi xam-xam ay ci yàlla ay doomi soxla ay nit ñu yiw waaye nag ñoom ñëpp am na luñ manqué woon am na mar wuñ maroon bëgg ku leen ci màndal mooy mar àgg ci yàlla ndax yaa ngi góorlu ci tool bi waaye yëg nga ne rek ba tey sore ko ñooñu rek la sëriñ bi jël tàmbale ñoom Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam ñëw Touba diir bu gàtt boobu mu xëy amal ci ñoom ay jëmm yoo xam ne namuusaj lañ ay namaasaj lañ ci mbaax ak njub ak sell kon loolu it baax na di ko fàttali ñu xam ne doonut loo xam ne dangay xëy rek daal di ne sotti na tey tey loolu ci tënk mbokk yi mooy wooteeb sëriñ kon wooteeb diine la boo xam ne ci sunna la tënku waaye tànn tasawuf mu yoonu defaram waaye nag yeesal li màggatoon ci diine ji xëy na dolli ci ne woote la bu boolee wootee jiitu woon bokk na ci ay mumayisaatam loo xam ne xamuñ ko woon ci jiitu mooy Sëriñ Tuubaa wooteem bi daawatun jaamia gis ngeen boobu mu nekkee ci géej gi ba yonent bi alayhi salaam feeñu ko jibril ñëw jël ci moom wérde ya newoon ci moom joxaat ko joxaat ko wérde yooyu mu dem mu yàgg mu jox ko wérde boppam nga xam ne kon diine ji la teg ci loxoom mu doon yar yarin woo xam ne it nag doon na yar ay nit ci jox leen ay wérde yoo yu mu jële ci ay sëriñ yu ko jiitu waaye doon na yar jox leen ay wérde yoo xam ne moo ko doon tartibal boppam loolu sëriñ moom Bachir wax na ko doon na yar nit ñi ci ay xeeti askar yoo xam ne moom moo leen ko doon tànn kon anamu yarin yooyu yëpp sëriñ bi jaar na ci ngir defar ñu doon defar kon woote la bu boole yëpp nga xam dafa mel ne rek docteur boo xam ne bu ñëwee boo ñëwee ci moom li muy njëkk def mooy tashxis la xool yow loolu dal mu xool nag lan moo gën a gaaw ci faj la mu war ngeen gis ñenn ñu nekk ak lam leen digaloon ndax nit ñi mën nañoo bokk sax wér gu leen dal waaye duñ bokk lu ñuy dafa jare ndax seen yaram ak dégareb wér ga ci ñoom tolloo kenn ku ne sëriñ bi jaaral la foo xam ne moo gën a gaaw ci faj la moo loolu taxoon ndigal yi di wuute léeg-léeg kenn ku ne man dig nangam lañ ma digaloon loolu mooy firndeel ne daawatul jaamia la woote bu matale la boo xam ne ku ci dugg ku ne lay sa jàngoro sëriñ bi xam na ko bu àndee moom mu fajal la ko ci anam goo xam ne moo gën a dëppoo yow woote boobu nag moo dox nit ñi wuy ko sëriñ bi di xéewal yor njariñ lu jeex mag ñi génne woon ci moom tasaaroo ci àdduna fu ñu dem doon fa sëriñ bi doon fa sëriñ bi ci jikko ak ci jëflante ba tax nit ñi fàq wuti leen fàq wuti leen kenn ci mag ñi di mu mës ta dem fenn di campagne nit ñi ba propagande naan man sëriñ bee ma seexal topp leen liñ doon def kay mooy dañuy wàcc ci dëkk sañ xëy tàmbali jaamu yàlla seen suluk seen comportement ak seen jëflante ku leen gis ni ah, ku baax a ngi nii topp leen bañ xëy dajale mbooloo ku ñëw it nag ñu ànd ak yow fa sëriñ bi fa leen sëriñ bi jaarale bañ mel noonu ñoom itam ñu fas yéene jaarale fi ñu ànd loolu seex yi taxaw ci loolu lañ taxaw loolu moo leen taxawal waaye mosuñoo jóg di ko di ko yittewoo dajale mbooloo moom it nag mës na nekk seen yitte. te firnde ji mooy bi sëriñ bi ñëwee Touba am ci ñenn mag ñu wàccee sant leen ñu sampu kër am na ci mag mu doon wax naan ndax kon kon loolu ci la bokk sampu kër kon ci la bokk kon kooko jógutoon ngir dajale mbooloo waaye dañoo dem ba fees nag yiw wi na ci ñoom ñu war a wuutu sëñ bi ci barab ya nga xam ne sëñ bi nekku fa ngir àggale fi yiwoo loolu lañ doon def ba mbooloo bari ñu ci woote boobu nag mbokk yi moo dem bu yàgg ñu gis ne nii ko sëñ Abo waxee feeñoon na ci lislaam feeñoon na ci woote képp ku baax ku mas a woote te noonu mu waxee ne Cheikh Ibra Fall waxoon na ne ñag bi dëll na ba la koy ña la koy la koy róor du jóge ci bitti waaye ci biir lay jóge lol am na am na ay woote am na ay am riir laa ko tuddee sax mu sosoo ci biir di yëkkati lo xam ne wuuti nag lool li borom doon wax ak li mu doon daf di ko santaane te ñoom teewut dañuy askanoo ne ci lañ bokk kon loolu it jar na mu leer jar na mu am na ci ci ñooñu woote yooyu wooteeb boo xam ne liñ jàpp daal mooy wooteeb sëriñ bi ak ruuxaaniya gese la mbirum màdd bokk ci ruuxaaniya la tudd yàlla la zikkar jeex na amul leneen sharia amu ci àgg na ci ñuy wax sax ne charia moom du am solo te wax naa sànq ci biir woote benn sëriñ bi lim jàngale ne imaan la ak islaam ak ihsaan islaam du am tu charia kon ku ku yëkkati ne ci sëriñ bi laa askanu waaye charia du sama mbir la ñuy laytoo mooy li ñuy tudde xaqiqa te sëriñ bi jàngaloon nañu jote gi dox diggante xaqiqa charia du ñaar mën a tàggoo daa am lu leen di boole waxoon nañu ne ñu bu sharia dee géej bu xaqiiqa dee géej gaalu sharia moom moom lañ cey jaaree ku ci sóoboo geneen gaal da nga lab kon ñooñu nga xam ne dañuy wax ne ñoom daal ñu ngi fàttaliku yàlla ndax yàlla lim bañ daal ma du kenn fàtte dégg ci ñuy wax ne aqimu salaata li dikri kon ki fàttewul yàlla soxlawul doon jaamu yàlla mas dama dégg ci ñoom ku àgg ci wax sax ne charia moom mbirum ku amutub sëriñ la waaye ku am ab sëriñ da nga war a bàyyi charia dem ci sëriñ ba li ci gën a doy waar mooy di laye bayit yu sëriñ bi wax ne sëriñ bee wax loolu daal di wax ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nassa xiyaaru salami moom bàyyiwul xel falsafta fi li muy tekki nee sëñ bi ne daal boo dajewut ab sëriñ bu lay defaral sa mbir demal ci charia loolu li mu ci dégg moom mu ne waaye kon boo gisee sëriñ bàyyil charia dem ci bi te sëriñ bi wax ne fal taktafi boo gisut musle na nga doyloo charia na ci yem kon da ngaa waroon a boole charia akub sëriñ la loolu sant boo demee dem ba sëriñ boobu amul nag kon yemal ci charia mi nga am góorgóorlu sa kem kàttan la ci des yàlla dana la waaye wax nag ne euh, ab sëriñ bu charia bu sëriñ bu fi bu sëriñ nekkut ci lañuy soxla charia waaye bu fi sëriñ amee kenn soxla du charia am na ci ñoom sax ñu yàgg boo wax ne yi ñuy wax ni yëpp julleeg woor ak yëpp amut yonent bi alayhi salaam ni ñu tumaal yi ko def ndax yéen ummi yi la ummi yi mënta jàng ku mënta jàng na muy jullee te mu yàgg jiite nit ci ca jàkk ja ñu topp ci ginnaawam loolu lépp nga ma ñu màbb ko wax ne yëpp dañ ko wax waaye dara wéru ci ba noppi ne ci njabootu sëriñ bi lañ bokk sëriñ boobu nga xam ne li ko sharia jaraloon ci fii ñu nekk gox bi ñoo xam ko ko fi jaral ci adduna bi sa mubaaraka sëriñ Mouhamed Lamine tudd na ca xew-xew yu xewoon ci ay jamono ñoo xam ne nii dañoo defoon lu tax sëriñ bi nar nar nar leen nar leen a xadd faat seen bakkan ndax bëgg a taxawal su saya nag ñi jàpp ci xamal ko ne ko nag réew mi ci loxo yi noon yi la nekk loxo yi noonu la nekk yoo xam ne loola amoo sañ-sañ ku fonkee noonu sharia soo nee li muy woote sharia bokk ñu toj ko te li mu woote sharia lépp la barab bu ma sa taxaw jàkka yam fay taxawal moo ko doon jiite di ca woo nit lépp loo xam ne da jëmal sharia moo ci gënoon a mag ramadan mii bokk ci jëm bokk na ci yooyu yitt jëm ko joxoon ba bëj ba mu nekkee ca tukki ba nekk ci biir noonam yorul sax lu muy génne murum koor muy def ay xas yi tarbiya bi alayhi salaam di woor ba ngoon di doge am ñax ak i xob kooku bu dara tukki baag lam ne woon woor wàcce woon na ko mën nañu wax loolu bu ñibbisee fay waaye ànd ak loolu dafa doon woor kon loolu ay mbir la yoo xam ne it baax na nit ñu bàyyi ko xel baax baax kon wooteeb sëriñ bi mënta génn charia charia la ak leneen nag charia la ak leneen ndax charia mooy lii feeñ ci kaw waaye la ko wund ci suuf xaqiiqa ba koy jëmal ba tax moom njariñ ñaar yooyu sëriñ bi boole boo yemee ci charia kese rek di jëf-jëfi kaw yi waaye nag la mu war a jeexital ci sa biir deful dara ci yow kooku it doona ko kuñ soxla moo tax sëriñ bi ñëw taxawal charia waaye nag xaqiiqa lal ko jooxe ne bu noppee ci yow liñ doon soxla ci sariya ji dana ci yow mooy jële fi nit koo xam ne day matt wattu alxuraan mën a jul fonk julli lool waaye jikko ji ñaaw lool loolu la ñëwoon ngir jële ko fi te jële woon na ko fi nag fexewoon na ba yi mel noonu yëpp dañoon li mag ñi siiwaloon naan doomi soxla yi day am nañu mel dañuy soxor dañuy nangam sëriñ moom ñi mu defaroon ay doomi soxla lañu yoo xam ne kenn ku ne sa morom wala gënal sa bopp te ay firnde yu bari mënees na ko ca joxe ci jëflante yu ñoon jëflante ci anam goo xam ne kenn ku ne fa nga tegoon sa sa morom tegoo sa bopp kon jële woon na fi jàngoro yooyu nga xam ne euh, dañ daan topp charia kese te xaqiiqa bi ko walla la lu woon loolu lu leer nañu ne kon loolu ñu bàyyi ko xel baax a baax woote bi mënta génn charia ku jàpp ne mbir bi daal yoonu sariya nga ne ñun fii lañ nekk lii waa sariya ñoo koy def ñun nag duñu waa sariya sëriñ Tuubaa sariya la ak xaqiiqa juñ boole ci anam goo xam ne mënuñoo tàggoo ku ci tànn benn bàyyi bi ci des wàcce nga yoonam ci tànn benn bàyyi bi wàcce nga loolu mooy li wér kon ñaar yi la loolu euh, ñu bàyyi ko xel mbokk yi baax a baax ndax sering bi ci ay jàngaleen woote yeb boole len sharia haqiq la wax kun muminan wa musliman wa muhsina in rumta sayran lil ilahi tuhsina wala tahsuna lu ci ma na nga boole iman ak islam ak ihsan su fekkee ne da nga bëgg dox jëm ci yalla kon yoonu ñu doon jëm ci yalla da ngay boole ñett yi dem kon nanguwut tajisi a jël benn xaaj bàyyi bi ci des ni man fii laa féete ñeneen ñi dañ féete feneen déedéet ba muy wax it ne ku bëgg àgg ci yàlla dangay ngay dem wuti ab sëriñ leeraloon na boo dikkee ci sëriñ bi lim lay defal yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada kon ci xam-xam ci jaamu yàlla lay wommat nit ñi ak tàggale leen ak ay baax loo xam ne da koy def te buñ la laajee lu tax nga ne sama baada masalan tey demoon na ba jaamu yàlla nekk aada ci ñenn ñi waaye doonul tut ngëm-ngëm ndax da koy def ba noppi li yàlla waxoon ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar yow ñu seet la ci biir fahshaai munkar kon daa nekk aada yow nga tàmm ku fekk say bàyyi say maam di ko def waaye jeexit dara ci yow sëriñ bi nag dindi fi loolu nit ñi jaamu ngir ne dañuy kenn ku ne yëg loolu ci sa xol di ko dund woote boobu la andi woon waxoon nañu ne nag ku bëgg a wàcc yoon wi jékki-jékki fital feneen jaaroo fi nga war a jaar mooy dugg ci manding te àndoo ku xam manding ma di la gunge noonu na tasawuf manding la ku ca dugg te àndoo sëriñ bu la ci jaarale da nga àll fa man bi mahmahi tasawufin nazal bi gayri tashyi'i murabbin xat kamul fa innahu yaxuudu fi lujji rada wala yajiu minu shay'in abada loolu mooy feeñ léeg-léeg woote yooyu ñaari ñu koy woote ñu jàpp ne tasawuf ak ak xeet tasawuf moo laaj loolu te fekk jaaruñ fi ñu war a jaar sëriñ bi ku ko roy da nga xam ne charia ak xaqiqa doon bool di ko dund mag ñi àndoon moom ñëpp foofu lañ jaarale woon ñoom foofu lañ jaarale ñuy dund charia ju mat sëkk di dund xaqiqa ju mat sëkk ci gi mu gën a matee boole ko teggee ñuy gën a ràññu ndax daa wax ne koo xam ne da nga dem rek sóobu loolu seytaane ma lew man léeg-léeg mu wan la ne yépp amul solo yooyu nga dégg wax yépp seytaane mooy làqatu seen ginnaaw di leen ko gëmloo di leen andil sax ay firnde lu jàpp ne ay firndeel te boo dee ba ci biir xam ne nekkul firnde kon woote yu am la bëgg ber charia ak wooteeb sëriñ bi mënuñoo tàggali ko charia ju xaqiqa lal la loolu moo mën a wax bokk yi bu ñu ko xamee booba euh, beneen bi ci des mooy amee na it beneen beneen beneen riir moo xam ne riirum màdda la moom rek ñoom daal ak murit mooy demal ci ab sëriñ ne ko jëbbalu naa ñëpp gis ñi jëbbalu na jeex na léegi yaa ngi naa bañu sopp benn comportement fexeel daal ba wut alal boo amee alal sëñ bi laajee joxal bu jox jox sëñ bi doy na walis lépp am na ñu gisee noonu ndax li koy firndeel mooy danañ ñëw jëbbul ci ab sëriñ waaye bañ jëbbuloo ak bañ jëbbuloo gul doo gis leen wutale lañ doon def ña ngi wéy di ko def li ci yokk daal mooy ñi ngi joxe seen alal loolu it du loolu mooy woote bi mbokk yi wooteeb sëriñ bi du alal kese sëriñ bi alal nekkutoon sax asaas ba muy liggéeyloon nit ñi ngir am alal taxutoon waaye ngir dindi wéradi tayel ci seen biir la ak nag bëgg bu ñu liggéeyee ba amee alal joojuñ jaamoo ko yàlla ci ñaar ci seen bopp waaye jaamoo ko yàlla ci seen njaboot jaamoo ko yàlla ci tàbbal ko ci lislaam ak njabootu lislaam gi bu jullit loolu santaane woon waaye bu ñu jàppee nag ne euh, sëriñ bi daal demal jébbalu loo am dafal xas nga askano ci moom jeex na leneen dootu loo dara boo leen waxee ñu ne sëriñ bi wax ne kullu muridin bi yaluudu yasaadu وإنه من الأذى مبعد سيرن بك واخ واي سيرن بي كل رجل وقت كل عبد كل مريد لا واخ يومي واخ لول ناخ ام مريد ناخ باتو مريد سيرن بي ليرال نكو سي يينن براب لير ناج كان موي مريد صفات صادق المريد واخ نكو واخ المريد لا يملك شيئا ولا يملك شيئا waxanoon ne almurid ngërëmul yàlla dong lay sàkku fu mën a nekk ndax yaa ngi ci yooyu moo tax baat yi sëriñ bi wax jàpp naa ne baat yu ma rek taxaw na buñ buñ jëlee wax ci kaw na rek ku lu murid bépp taalibe daal di jàppee taalibe nag mooy ñii ñëw rek ku ñëw ci benn sëriñ rek ne la naa jeex na taalibe nga dugg nga bind nañ la ci ab kaay registre bokk nga jeex na nen noo mën a melit yaa ngi ci murid ja demewut noonu bokk yi murid mooy mag ñooñu bàyyi woon seen kër yi bàyyi seen ëtt yi ñu amoon ngir topp sëñ Tuubaa ngir doon yi mu di taxoon kon doonul loo xam ne dañuy xëy xëy rek benn jataay nga am ko mu jeex mag ñooñu looy daj nañ daj nañ lu mburu dajutu taal door nekk ay murid te taxu doon sax ñu jàpp ne ñoom mat nañ kenn ku ne yaa ngi doon tiit di góor góorgóorlu ngir ba gën a bëgg gën a mat kon loolu jar na bàyyi xel bi ci des it yaluusu kullu muridin bii yaluusu la wax bépp murid bu wéeru ci man it taxaq taxqiq maanaam wéeru ci Sëriñ Tuubaa mooy lan li xam ci wéeru day mooy ci àdduna rek loo wéeru lu ne fu mu jëm nga jëm fa boo ab bant bu ñu samp su bant bi daanoo nga ànd ak moom daanoo su bant bi ngay jëm day joor mbaa càmmoñ nga ànd ak moom kon wéeru ci sëñ bi mooy lan fi sëñ bi bëggoon a jëm bëgg faa jëme mbooloo mi da nga waaye sëñ bi jëm penku nga jëm sowu te wéeru naa loolu it yi du du leer kon kullu murid bi yàlla su du layu ku bëgg a wax ne boo jëbbuloo ci sëriñ rek la ca lépp sëñ bi ko gàddu dara mënatu laa wàññi dara waaw dëgg la bépp murid bu def layaas faw mu taxe ma waaye murid bu wéeru la wax kon nay leer lan mooy murid lan mooy wéeru bi ci desit xab bu mucc mujj damay faral di wax ne ñu bari ñuy wax loolu dañoo jël xab bu njëkk bi daal koy firee ni leen neex daal ne kon jërul sonn ci jaamu yàlla jërul sonn ci dara taalibe laa danaa mujj waaye xab bu ñaareel bi nag moom gëmul wa innahu na al azamu baadu sëñ bi da caa boole ne da nga mucc ci lor yi boo jàppee ne kon boo wéeroo texe kon jëratul ngay jaamu yàlla jërul ngay def dara bu ñaar it kon jëratul ngay fegu lor jërul ngay faju jërul ngay muslu ndax ne da nga da nga sori lor waaye ànd ak loolu ñooña guddeeg bëccëg ña ngay wut leen ci lu dagan ak lu dëggan ngay ràngoo di takk di def lu ngir bëgg mucc bu dee jaamu yàlla nag ñu sëñ bi nee nag lu mut bi te moo wax ne wa innahu min al azaw baaxal nga gëm xab wu njëkk wi bëgg a weddi wu mujj bi loolu tanaaxut la bokk yi day jàpp lépp xam ne sëñ murid la wax bu wéeru ñaar yooyu ku ko boole da texe lor yépp da nga waaye nag dañ jéem a boole nekk murid nekk daf layaas ay baat la yu wax yoo xam ne am lu muy tekki lu ñu xam faaw ñu jéem koo leerlu door a mën a wootee ñun moom la war a dégg loolu it jàpp naa ne baax na ñu xam ko loolu loolu bu dul loolu dañuy nax suñu bopp ci loo xam ne xam nga ne demul noonu sëriñ bi nga doon roy bi nga roy bi roy topp ci moom. mu bok ci wa kër serigne bi wala serigne bi yar ko nga fekk len waxtu wona ñi gor goru ci lu bax ñi ngi tabax ay juma ñi ngi tabax dara ñi ngi yar dongo yi ñi ngi toj ay al lepp ngir bëgg ñi yow nga ne ci mom nga aju waye man nak damay dund ak murid a ma façon amna bu ma sa dégg wax lu mel non moom daal am nu ko nu ko taamoo nu ko jappé dal non la koy dundé li am solo nak moy murid la kenn mënu ko gën ci murid yi tay murid yëpp dañuy taxé murid yëpp ay taxé waye murid yi ñooy taxe murid yi mbokk bi bàyyil xel ndax murit nga wax ko ci salaam yi doyut waaye ay jëf moo koy dëggal nit ñi buñ jëfee feeñ nit mën naa bañ wax ci làmmiñam benn yoon ne murit laa te fekk muy murit saadiq nit mën naa dëkkal ci làmmiñam murit saadiq te fekk muy muridun faasiq ak suñ Musaa ko waxee woon yooyu yëpp mën naa xam bu baax a baax kon loolu tayaar la bu mat a bàyyi xel mu ngi ci biir nag amin nag ñoo xam ne danañ góorgóorlu ci liggéey liggéeyal seen sëriñ liggéeyal jaamu yàlla yi waaye nag ca la jëm bu jaamu yàlla jotee ñu ne ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaamu yàlla ci waar li waar woon sëriñ bi ñaari waar la xàlloon waar woo xam ne sa diggante ak sa borom na rafet na set ak waar woo xam ne sa diggante ak sa borom jaam ak sa diggante ak say kilifa na rafet na set ngir nga mat dangay boole ñaari waar yooyu way jàpp rek ne xitma doyna na lépp ba waxe ñu ne tuuba li abdil muridin sadiqin lahum bi khitmatin aw bi hubbin aw hadiya deug la waaye batay lama waxon fe lay wax tuuba li abdul muridin la wax suñu waxu tuuba li rajulin waaye li abdul la wax kan moy abdul murid ba noppi ne ci sadiq kon ñetti melokan la bolé da nga nek abdul nek murid nek sadiq doora am tuuba go muy wax ko defé nak bo defé khitma wala hadiya wala bu xobbu man la naa yóbbu loolu yi jàpp naa ne jaar nañu bàyyi ko xel xool yi nag waaw Serigne ñi nga xam ne tey ñoo doon ay murit dëgg-dëgg jaar ci ay loxoom wala ñu jaar ci ñu jaar ci loxoom nu ñu meloon ba dañoo doyloo rek xidma maam Xaali Jaxate mas naa sant ab liggéey maam Cerno Birahim foog naa ne dëkkam bee ay numaar yi ba mu koy gor maam Cerno yabaloon taalibe yi ko doon goral ba mu dikkee nee na da leen a wan liggéey bi liggéey bu jaaxal ko lool ba tax mu di ci santaane waaye bu ñu dikkee ñoom daal liggéey bu woyof ci ñoom tooy la ko njëkk a jaaxal mooy loolu mu def ci ñoom xasida goo xam ne fu ne war dañ ko fee tasaare ngir xam le Sëriñ Tuubaa ñi mu doon defar ñii lañ ma ngi ko tàmbalee ci mu rab baw na nga li mu njëkk wax rek ay nit lañ ñoo xam dañ leen a defar nag ñii may gis ay mu rab baw na nee na boo leen gisee seen kàddu ak seeni bët dañ koo damm dañoo suufeel seen kaddu sëgg ba boo leen séenee da nga jàpp ne ay malade lañ yuy wër docteur bu leen faj ni ñu yërëmtaloo yoggu yoggul wala nga jàpp ne ay néew ju doole yu gis borom alal yuy saraxe ñi bëgg a yërëmtaloo ngir mu sarax leen lu dul nee na boo jàkkaarloo ñoom al ay yambar nga leen teg daal la bëgg wax ndax seenu yar ak seeni teggin nee na ma gaaral leen liggéey bi ñu dugg àll bi liggéey ko ko na gën a rafete ci sell yo xam waye la tax may wax nee bo boo leen di dégg ñom fama rafau aswatahum fama rafa'u rafaul aswaata illa bi dikrihim seen kàddu boko degge tut yàlla duñ wax leen waye nak wa ma al awqaata naflan wala farda liggéey bi limi muy metti metti li muy tartar nee bu waxtu jotay dina fa ñum mu liggéey waxuma la farata de waye naafila sax duñ ko fa ñoñu la sëriñ Tuubaa dafa kon ñooñu ñooy murid yi kuy roy ñoom ngay roy ndax fa mu leen jaarale mooy yoon wi foofu rek mooy yoon wi koo xam ne waxuma la farata ne waaye fi la daaw leen rab te ne ci àll bu tar di gor ay tool mu tàng jër metti lool ba borom tool bi jaaxale woon ci tax mu sàkku ci dimbal yow nga ñëw defal kooku ci anam googu wax ci boole ni saa bu ñu rombee ku jigéen nee na dañuy sëgg baa ñu du mooy ay xalaatuñ koo xool loolu loolu mooy melokaan murid sadiq gi tax ñuy wax kon murit gi jaamu yàlla ci anam yépp la sa diggante ak sa borom ci jaami yàlla yi ci liggéeyal sa sëriñ ak liggéeyal taal dañ koy boole waaye des ko tajisi ak beru féete woolee kee féete woolee ndax lu ci nekk bi sëriñ bi ñëw mi ngi fi woon nit ñu doon yëngu ci waaye mel noonu waaye kenn ci ñoom matutoon sëriñ bi nag nit ku mat la doon defar si ku mat nag day boole yi tax mat yi tax a mat nag mooy nga boole jaamu yàlla boole xidma di liggéeyal yàlla di liggéeyal yàlla ci boppam moom yàlla waaye di ko liggéeyal ci jaamam ñi ko yoral diine bi nga taxawu leen sàmm leen euh, dëgëral leen dina liggéeyal bu dégg bëccëg loolu lañuy boole doon nekk murid murid bu amaat na it nag beneen tayaar beneen riir moo xam ne riirum jàpp ne liggéey daal bokkut yoon wi nit ñoo xam day jàpp daal nit ki daal mën naa góorgóorlu ci diine mën ngay def lu ne waaye nag liggéey moom àgg na ci ñoo xam ne sax dañoo foog ne ñoom liggéey ak manqué la na ci nit jàpp ne liggéey ak manqué la jàpp ñenn jàpp ne du Pastef sëñ bi boo ko doyloo da koy bàyyi sa bopp waaye ba day mel ne boo day wut liggéey sëñ bi sëriñ boobu nga yaakaar moo la sant nga dem liggéey ndax lan ngir yor sa bopp ndax lan ngir mën a liggéeyal lislaam ci taalibe yi ak ci njaboot gi ak ci jullit ñëpp waaye boo jàppee ne kilifa wala sëriñ wala ku baax daal warut liggéey am na liggéey yoo xam ne wërul kenn rawatina ku baax waaye wërut wërut liggéey moom biddaa la lii see wax biddaa la ci yoonu sëriñ Tuubaa yi yoonu yoonu liggéey la woon loolu kilifa yi nett li nga xam ne liggéey bu metti mette mett ci barab boo xam ne ndox amu fa dara amu fa waxtu wu ne ñu ngi liggéey du nawet du noor Sëriñ Tuubaa liggéeykat yi gën a mag la woon mbay daa gën a siiw ci jamonoom ndax mu ëpp ci àll waaye yeneen xeeti liggéey yépp Sëriñ Tuubaa dafa ko du liggéey wax nañ ne këram ci jaareem ab atelier ab ab sànce la woon ministre yaa ngi ci biir wuute yaa ngi ci biir defarkat yépp yépp lu ñu liggéey ña nga ci biir kër gi te ay doomi soxnaal la tàggatoon ci loolu ñu doon ko def kon doon yar ay nit kenn ku ne am métier mooy def di ci jaamu yàlla bu lislaam soxlaa nga defal ko ci bu sëriñ bi soxlaa nga defal ko ci ndax kon jaaru na ne jërut liggéey toogal rek sëriñ bi indi na xéewal yi bu dikkee ngi xew booy ne liggéey daal day mel ne doyloo woo sëriñ bi te la gën a doy waar mooy boo ko defut it danga def leneen loo xam ne ñëpp xam nañ ne liggéeyee ko tànni da tàllal loxo di tawaaf ku ñenn ñi waxe di dugg foo xam ne lu ñu la tegoo ko tegu ko nangoo wàcc ci say ya nga gëmoo nag na nga meloon yépp ba ci bisiwaat ndax lan bëgg loo am te ndono yàlla sa maam wala sa baay bàyyi loon mooy àll boo xam ne tey boo demoon toj ko mën nga fa liggéey jariñu fa jariña fa léegi dañ ko toog bëgg a wéy ci jariñu ci kaw ne damaa doyloo sëriñ bi bu doyloo sëriñ bi kay fi nga toog doo fi jóg bu dee maanaam moom nga ko yore toogal fi nga toog bul yëng bul yëngal lu lu ne lu dikk nga xamne mo mu ngi noonu kon serigne bi da wote won ci liggey kilifa yi ko fi wuutu yep it nak bokku na ci liñ leen xame won ko ci gis toj na ay àll yóbbu fa ay nit ngir bëgg liggey serigne touba ci bopam mo ñu jangalon wa talabul halali fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahabi ndax jaar na kon jàpp ne kon talabul halal liggey moy sakku lew ndax jaaru na kon murid yi wax ne liggey am murid wala boog am na ci biir murid yi ñoo xam ne ñoom rek ñoo war a liggéey ñenn ñi war a toog di consommer lu ñu liggéey jox la ñu lekk Sëriñ Tuubaa mosu wax loolu waxoon nañu ne laa yanfau al ilm wala al ibada bil ak jaamu yàlla lu mu bari xaraam du bokk na ci lekk xaraam nag seen jàngale na ko laaj boo xam ne du aaju laaj alal nit ñi te du aaju nit bu sësee wéree di mënta liggéey wala mu am ngànt sañ naa laaj ngir dund waaye ku dara jotul am droit ci laaj foofu daa bokk ci li borom xooy wax ne laaj boobu alal bi léwut lay doon ndax wutiin wu dëgganut la bu kenn wax nag ni mag ñi dañ daan laaj du yi mag ñi addiya yi ñu doon laaj lëkkuñ ko ay procès l'islam moo doon am ñi tabaxale jàkk di taxawal yoo xam ne nit ñi ko dajale dajaleel nit ñi seen alal defal leen ko ci ngir yàlla kon li nit ñi ngir ñu am ngërëmul yàlla la woon yooyu it day mat a xàmmee kon yooyu mi ngi woon ci biir waxoon nañu ne iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabnul huda wa taa na ngeen sàkku ji lu lew waxtu wu ne ndax ci lekk lu lew ci la njub di mën a amee kon bari na tey dëng-dëng yu am ak njaaxu bu ñuy def lekk lu lewut moo koy waral waxoon na ca fataxul mën naa ne من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كريم ومن أكل الحرام عصى الله أحب أم كريم من لكل لو لا يتحدث لباخ لكل لو لا يتحدث لباخ كن لور رك ورنا تحن خمني لغي لو أم صلى الله عليه وسلم بناه وخنا كي دمي سرى بيد ووخنا ساكول لو طب يالا لا ndax ak njub ak top yalla du am te lekk lu amut wax ne sax fimni ni fagulu lew yu baree bari yu teel fàggu li war a jiitu te boo ko amee bañ ko yàq ndax nee na jamono lu lew dafay bëreetul kon loolu it mbokk yi am riir la ci biir ñoo xam ne ñi ngi wane ne mën daal duma liggéey gone gu ndaw yor kurusam wala yor ab dollam ci lay xëy ci lay gont ba noppi bëgg yor këram waxtu mu ngi takk soxna lu ne mu ne bëgg naa ko am léegi li mu am fu mu ko jële te jàkka ji soxla daara yi soxla lislaam ji soxla ndimbal yow da ngay dimbandikoo lay ñëw ci jàkka ya daara yee waaye dimbali woo lislaam waaye sëriñ bi ki soxla mooy koo xam ne fu lislaam soxlaa mu jëkkati alal bari lool ay Usmaan ibn Affan ci xeet bi Usmaan ibn Affan bi nga xam ne alal ju bari ju amoon di ci jox yàlla di jox yonent bi alayhi salaam ci la jekk-jekk yonent bi alayhi xëy ne Usmaan mbaa yàlla nañ ma darra Usmaan maa amila ba'dal yawm sëriñ bi ñu mel noonu la bëgg ci ci yoon wi ñuy liggéey di am ngir bu lislaam soxlaa ñu mën koo fajal ngir it mën a sàmm suñ dignité ngir mën a sàmm suñ ngor ba kenn duñu mënal dara kenn du ñu jëmee fuñ bëggut a jëm te loolu mag ñi jëmaloon nañ ko ci seen doxin ku mos a ñëwit da ngay ànd ak ñoom fi ñu bëgg a jëm ñoom ndax ñaar yi tax nga mën leen a wëlbati xupp leen wala xëpp leen soxlu leen ragaluñ la ndax seenu gëm yàlla gu dëgër xëpp leen soxla wuñ ko tax ñi ngi liggéey te li ñu soxla ñu koy faj te ñaar yooyu ci lañ doon naxi nit ñi sëriñ bi ñëwoon it ngir jubbanti njuumte tawakkul nit ñi dañ koo dégge woon su fayaan ki bari dañ koo dégge woon bay la ko dem tëj ci jàkk ja di dund ci ay sarax sëriñ bi ñëw wëlbati yooya fekkoon fi ab sëriñ boo xam ne alaaxam relation ak buur moy lu bour ñaawle wala mu magat le ko wala soxlaatu ko sarax nga xam ci ndimbalu bour lay dund sëriñ bi ñëw wëlbati mbir yi léegi buur mooy ñëw di dimbandikoo sëriñ bi bu amé soxla ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi dimbalu sëriñ bi ci leeral tawakkul moy lan daqoon di wut ak fàggu ci xamal ne la ngay am yalla la ko may waye du sa ngor waye demal fàggu ci loolu sëñ bi leer loolu nañu ko jàngale ñu ko mag ñi dund ko bañ gis ay résultat tubaab yi nekk nañ fii soxla ndimbal ñëw ci murid yi kilifa murid yi dimbal leen wax nañ maam Cerno Birahim lebaloon tubaab bi dugub joo xam ne ba tey jii wax nañ fay te booba jamono naqari xiif am réew mi nar tumuraanke mu dem fekk li liggéeykat mag bu taw noonu mu jël ay sàkku jox ak yeneen yoo xam ne murid yàgg na ko def ndimbal yu bari tey jàkk yi bari tey ci réew mi ñu leen di sow la ca murit yi daf bu ca génnoon jàkk ji du àgg ndax lan dañ doon liggéey di am alal ju lew di ci mën a jàmm yàlla ci jaamu yàlla kon yoonu liggéey la kenn wax ne euh, boo ci nekkee liggéey wàcc woot kon yooyu noonu xeeti riir yooyu am bari na mi ngi tasaaroo nii si boo waxee buy tàmbali tuut lay doon waaye day màgg di dox am ñu koy théoriser di ci wut booloo dem moom yàgg rek ñi seen bopp widd wala xamuñu bari wala ñu bëgg ay intérêt tax ñu dem wuy si leen bu yàggee mu deen ak kudd la nekk mbooloo léegi nag li gën a doy waar ñoo ñëpp dañu am ay bis di ko wooteel di ko wooteel kenn ku ne di la nga gëm wax ne mbir mi lii rek la mi lii rek la ku ànd nañu ci loolu la ñu ne yow mu ne ku ci àndul ñu la bokkoo ci yoon wi te sëriñ jàpp naa ne moom rek moo mën a wax nit ñi kan ma mënu saa ak ku doonu te wax na ko ay melo la ay jëf la ay dundin la yoo xam ne da leen di boole door nekk murid saade bu mat loolu nag bi mu amee am na jeexit mbokk yi bari na jeex jeexit mu am jur na jur na ak jàdd ku am ci ñu bari wuteetuñu xam-xam te yoonu yoonu jàng la li sëñ bi taalif soññi nit ñi joxe ndigal ci ne na ngeen xam xami seeni farata ànd ak loolu am jàpp ne sëriñ bi nekkul ci téere yi fu ne loolu la wax rek waaye du ñu wax ne sëriñ bi moo bindal boppam wax boppam mooy kan fan la bëggoon a jëm lu mu bëgg nit ñi def ko mu leer nañ yi nga mën koo jariñoo damay faral di wax ne man ku góorgóorlu ba jàng arab ba jekku ci tuuti foo toog sañ ngaa wax ne sëriñ Tuubaa nee na muy dëgg ndax mbindum boppam nga tiim di ko wax bu dul loolu nag da ngay dajeeg sëñ Abo mu jël bayit bi na mu ko déggee moom loolu lay firi mën naa dëppoo dëgg dëgg la sëñ bi wax boo neexee mu dugal ci ay yëfam kon li wóor mooy deewal xam kon buñ nee xam-xam amu ci solo wàcc na ñoonu sëñ bi te sëriñ bi fu mu mas a sanc daara ja ñooy ànd gis ngeen li sëñ Mat Lamin nekk ci Irwa bi sëriñ bi dem Mbàkke Bari dafa wax sëñ Mbàkke Buso na fi toog mu yóbbaale maam Thierno mu jàngale xam-xam yóbbaale sëñ daam mu jàngale alxuraan kon mook daara ñu dëkkoon di jàngal nit ñi den yar fu masa nag ci loolu la nekk waxtu ne mu ci soññe kon bu ñu waxee ne xam-xam du yoonu xam-xam ñu ngi tooñ te xam-xam yi ëpp njariñ ëpp solo ci réew mi it nag mu réeg liggéey ci lu bare bare it nag seeni taalif ak seeni gëstu kon yoonu xam-xam la waaye bari na ñu jàpp ne ñorut ba tax njàng ñorut lu ñu bari bu ñu la gisee jàng sax jàpp ne ah, yow am naar nga wala biti jàng nga wala nangam ñun ñu ci sëñ bi te moom mi ngi jàng mi ngi jàng sëñ bi yow nga ne ci bitti na yàgg sëñ bi te bu ngeen waxtaanee ci sëñ bi lu mu doon wootee lu mu doon moo la koy gën a xam loolu it jàpp naa ne bokk na ci jeexit yi nga xam ne jar na bàyyi xel waaye bokk na ci it nag. ndax loolu lépp day dellu ci buñ buñ umpulee xam-xam day juraat yeneen jeexit umpule xam-xam bi li muy juraat mooy lay day jur nit ñi ci réer la ñu nekk ku réer la da ngay loo njëkk jot jàpp ne loolu la saa boo njëkk a dajeeg ku la ëpp bopp gën xel mu daal lay dévier dugal la fa mu nekk ne la kaay fii la ñooñu gis ñëpp ñu yor mbooloo ci yooyu ci lañ bokk ñii ay kurus lañ yor ne di wér di ci la sëpp pour solo wér rekk fa nekk yor ci mbooloo bu dégg ba ca ña ngay wér toj du ñuy ab sëriñ amuñ soxla ci keneen japp nañu li yor lepp ma nga foofu ñenn ñi yor ay jukki lañu yor ne la qasida gi dàngam yor la koy dang par bis mbokk yi lool bi daal ban sëriñ ci suñu tuba ba neugri lañ xamoon ko xam day jël genn xasid di ko jàng nangam yoon par bis di jàngul jukki jaamu yalla yi ko def ko waral legge legge wu kan lañ xam ci sëriñ si ci kilifa yi sëriñ bi yaroon wala mu jaboote leen kuñ xamal lu mel mbir nag bu fekkee ne ci yow la bi bidaa la ndax mënoo am delluwaay ci lii may def nii maa ngi ko jëlee ci sëñ diw mu jëlee ko sëñ diw mu jëlee ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa doon jàng alxuraan di jàng xasida di zikkar di santaane ñuy liggéey yi waaye kenn ku ne fa nga toll fa nga toll la fa war nga def loolu mooy ngay boole doon nekk yoon bi waaye boo ci jemee ci lenn jàpp ne mooy lépp ñenn ñi bu sëñ bi wootee ñu ne ña ngi ci woote ba danañ góorgóorlu rek guddeeg bëccëg ña ngi ci liggéey waaye bu jaamu yàlla jotee ñu wax la ñu ne dem leen ma nekkal leen fii ngeen nekkal ma foofu te sëriñ bi ci boppam daan santaane lu ñuy def bu ñu xasee déggati allahu akbar nañ ko bàyyi dem wujji wootam yàlla bu ñu noppee ñu àggale loolu jeexit ñàkk xam mu jur xam ne ña ngay woote woote yu bari di ko delloo ci ruuxane te it axiran am wutum alal la ndax man ñu bari ñu ma xam ci njëngu ci yooyu yori kurus jëpp jël jël xasida yi waree rek mooy seen liggéey axiran ay jaaykoti ndox la ñu doon kuñ gis ne la ma fa sàlleel la naal nangam bu yàlla suñ ko dana baax mujj doon ay jaaykoti ndox suñu boo ñoom xam nañ jaaykoti ndox lu muy tekki loolu euh, jàpp naa ne euh, wutum alal la ci beneen façon wutum alal la ci beneen façon waaye bokk na ci ay jeexi tamit nag ñi ci biti ñi ci bitti yoon wi bu ñuy dégg riir mel noonu ñuy wax yox yu rëy ñenn ñi ne Serigne Touba àggale ko foo xam ne moom ci boppam yaa ngi koy tooñ ndax boo day jàng xasiida ñàkk xam loolu mooy lor ji da ngay jàng xasiida li xadis boo waxoon ne am nañu jàng alxuraan alxuraan nag leen dërëpp loolu am na ci xasiida yi sëriñ bi ngay wax mu ne la yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadima man sumaatuhu muhammadu boo ko génnee ci kaadaru doon jaamu yàlla liggéeykatu yonent bi foo koy dugal te nee mooy al abdu al xadim boo ko génnee ci foofu foo koy dugal feneen foo ko dugal tooñ ko foo ko ko ndax moo la gën a xam boppam te loolu la waxal boppam waaye boo xamul nag yaa ngi koy jàng ba noppi di jëf maa ngay wax lu weddi li ngay wax kon yaa ngi weddi sa bopp boo déggoon li nga jàng dëgg-dëgg da nga xam ne li ngay wax safaano loolu kon pas-pas yooyu yëpp mi ngi juddoo ci jàdd googu ndax boo jàddee ba jàngiwoo dégg mbir mi nenn dana tax nga fas lu fasuwut sa digganteeg sëñ bi sa digganteeg ay njàngaleem wala ay mbindam ak yu demee noonu euh, loolu it na ak ñàkki teggin bu tàmbalee amit te yoonu yoonu teggin la woon li xamoon yoon mooy teggin ma sëkk ak ñëpp wax ju yiw wax ju yarul léegi nag nit ñi dañuy kursu kursu ñaaw làmmiñ booy jaay léeg-léeg nga dégg booy jaay ñaw làmmiñ da xam ne maa la gën a ñaaw làmmiñ loolu du ngóor ñëpp ñëpp ñoo mën a ñaaw làmmiñ waaye borom bi ñoo xam ne xuulu linnaasi naa xuulu linnaasi xusna mooy ndigal li loolu la suñ Tuubaa woote woon waaye jeexeet yi fétale yi ndax boo fétalee newoo ci loxo sa gis-gis bopp tege demee lu lu jubu ci wa rek noonu la ku ci nekkut nekkoo ci dara te ku nekkut ci dara moom mala yi ñooyam sañ ngaa jëflante moom ni ngi jëflante mala loolu moo tax ngis ku ne ku nekk woote ba nga nekk ku ci bokkut da nga naan doo dara kooku du dara boo ko rombee doo ko nuyu ku moo ci moom soxla buy wax doo ko déglu ndax jàpp nga ne du dara loolu njuumte la ci jeexit yi baaxul ndax ki xas jàpp loolu am na virus bu ko dugg si boo doon wax boo xam ne mënut ko faj ndax léegi tax na gumba lu ci yëpp tey li taxoon nga mën a jar mooy ngay déglu ñeneen ñu lay waar ne la jubbanti nga mën a dellusiwaat waaye boo demee ba dégluwutoo kenn xoolatoo kenn jàpp nga ne li nga nekk dong la ku ñëw ne la yaa ca ne waaw góor nga door a geesu ku wax leneen doo ko faale kañ ngay gindi te loolu am na ci woote yi te woote bi tasawuf la maa ma kaari nga axlaxal fi ñu jur na it yitte ju xam nga mag ñi doo ñëw ci sëñ bi ne ko daa bëgg àgg ci yàlla ma mar yàlla ndax déggati ngeen dong bu ñëw ci sëriñ bi ne ko mar yàlla bu fi indi nit ñi seen yitte dafa suufe sëriñ bi dañ koo diggaloon ko digaloon rabbihi rabbi ashaabaka bil himma ana yitte jooja gaa ñi soxla yàlla guur yàlla yu mag yi ba taxoon maa leen saxaabatu kiraam ñooy seen bàyyi ci diine kon mooy ñooy seen nawle ndax bàyyi nawle la léegi ana ku ngeen gisati mu jóg di soxla yitte ju kaw jooju dañu bëgg ci sëñ diw lay jéblu ndax lan su mu amee problème mu rek la su mu amee jafe mu rek la ko ay taalib da leen taxaw ba bëggee tukki mu fexe ba nga tukki loolu mooy yitte ju kawe ji loolu mbokk yitte ju suufe la ndax wa min daabbatin fil ardi illaa alaa rizquhaa foo mën a nekk ci àdduna li yàlla programme ci yow sa wërsëg faaw nga jot nga tukki ak nga toog waaye boo dee jébbalu ngir bëgg ku la taxaw kon jébbalatoo ngir àgg ci yàlla kon sa yitte ju kaweetu te loolu am na ñi tànn ay sëriñ ci anam googu waaye sëñ jiw di baax loolu waaye moom dafa sëriñ man sëriñ bu kii laa soxla bu yëngu am na ñu koy wax loolu jur na leneen sëriñ si bi leen sëñ bi defaree ba noppi dañoo fees dell ba nopp woyof toy koo ci gis day woyofal boppam boo ko doon woow du la wax mukk mën a sëñ diw mën a diw sàngam lay wax léegi nag lu xew wut ay alqaab yu rëy rëy ñi ne may borom ku fekkoon may mu am ndox mi tur bu ne ngay dégg rek yu rëy rëy yoo xam ne ana ñooñu ak ka doon wax naan afxarul fuqara wa axqaru kulli ma yura sëñ mbakki bu sa daan na ko bii sëñ soy bu mbakki mii daan na ko sëñee ki gën a ñàkk ci ñàkk ji gën a xeebu ci lépp lu ñuy gis soy bu mbakki ana ñooñu ak ka doon wax naan ubaydu rabbihi wa ibnu cheikhi njaamuus borom waxul sax njaam as njaam la loolu sëriñ lan Mbàkke moom lan signé ak ka doon wax al al ubaydu daif sëriñ Abdul kon lii ay jaxit yoo xam ne taskiyatu nafs la duufal sa bopp la duufal sa bopp ci mag ña nga xam ne ñoo feesoon dell ba noppi di wàccee seen bopp yow nga woyof toy ba noppi yéegal sa bopp foo jëm kon tur yu rëy yooyu ci jeexiiti jàdd woote bi la waaye ñu tëggu ci woote bi dañuy woyof toy duñ rëy duñ diis dañuy ubbi ko ci kanam ñépp loolu lu ñu war a xam la te umpale sëriñ bi ni ko sëriñ Muntaxa ba di waxee xafisahullahu taala bari wane ne xamuñu sëriñ bi dunduñ ko dañ ko bëgg nag waaye xamuñ ko dunduñ ko loolu jeexee bokk na ci yi may wax ni ndax buñ xamee sëriñ bi te dund ko danañ sori yu mel nii waaye loolu nag bari na ci suñu biir tey ku ne rek bala nga am ci da nga tur rëy rëy ne yaay moom yaay moom li gën a doy waar yaay moom woote woowee ko sax nga mere ko léegi nga xam ne suñu reewaay ñoom lii ñu doon def da leen gën a mat wala da nga leen gën a fees wala da ngaa xam lu ñu loolu jàpp naa ne jar na bàyyi xel baax baax mbokk yi bi ci des it nag woote ay karaama ba bu yàggut xamul nañ alaaji mun maawuñ nag ndeysaan xafisahullah taala lu mu doon bind turbatu aqdaamil muridin turbatu aqdaamil muridin ku jàng ci mag ñi ak woyof ngay jàng waaye doo réer sa bopp ak nag wootee karaam lu ne ngeen maa ko def léegi dëkk jékki-jékki ne nangam maa def nangam diw sàngam maa fexe am nangam tax mu ñàkk nangam bokk yi sëriñ bi la mu jàngale woon wala takun fi lfatxi dastijaali fa innahu lmaxiidu lirrijaali nit yàlla yi dañ doon wax ne feeñal ay karaama ak yëf mi ngi mel ne xaydu ci jigéen wala yu ko def sax dañ koy làq saa buy feeñ day fekk mënta ñàkk nit loru lool ñu war koo xetli xetli ko waaye boo leen waxee sax ne karaama la ñu ñu ñu ñu du moyu la ana ñooñu koo xam day jekki-jekki ne def naa karaama sàng bis sàng maa def làng da ngeen koo yëgul waaye nanga maa ko defoon te ba muy xew yàlla xam na ne yëgu loolu ci am la mbokk yi ak it nag woote ak keex woote ak keex wax naa ci biir waxtaan wi ne sëriñ bi daw jékki-jékki diw kaay seexal naa la nangam dala daan defar tarbiye la fóot la duy la taxliya taxliya bu noppee na la demal foo dem na nga góorgóorlu ku ñëw ànd ak yow ah yar ko ci li ma a yar mag ngi dem toj àll yi loolu la ñu tëral léegi nag bari na ñoo xam ne boo leen laajoon fuñ jaar duñ la ko nettali mukk ba pare ne la ay cheikh lañ ku leen seexal ak ceex tarbiyee la da ngeen kooku ñëwoon ci sëriñ bu mag bi ne ko daa bëgg ku ma defar mu ne ko defar taqoo la laaj di man amatuma jotug taqoo kenn demal ci Balla Fall kon nit ki ngir mu mat il faut mu taqoo ko baax ñu defar waaye ne ci sa bopp mësee su la dégg foo jaxasoo ku baax nga jékki-jékki xëy na man seex naa ku la seexal loolu jar na bàyyi xel bokk yi bi ci des it nañ xam ne ak keex am na mbokk mu ko daan wax ne tashrif tak taklif la gën a doon ci tashrif maanaam responsabilité la gën a doon ci teraanga ndax lan mooy ñii ànd yow fexeel bañ tegu ci yoon ndax qu anfusakum wa ahlikum naaran kat képp ku yàlla dogal mbooloo ñu topp la jël seen lépp jox la say ahlu lañ de bàyyil xel ne ku anfusakum wa ahlikum naaran dana wàcc sa kaw sa diggante ñooñu buñ dëngee teguwuñ ci yoon yow mel na ñu bari ñuy woote yooyu yooyu ñëru leen déggoon koo xam dafa ñëw ci genn kilifa ne ko dama bëgg doon sa kii daal di ne ci soron daal liggéey sonn bu day bëccëg ma ngay defar lu ne ma koy def waaye nu nguur jaamu yàlla ay yoon sëñ bi woo ko ne ko nag man ko ànd ak ma dañuy jaamu yàlla daal loo mën a def na waaye bu jaamu yàlla gi di ñëw di ànd yàlla mu maslaa maslaa sëñ ba dëgër mu dëgër mu jékki-jékki ne ko ah damaa jàpp ne woon man nga waaye ndekki mu dëb sëriñ daal dem seeti koo xam ne mu bëgg am na ko kon mel ne moom moom mi soxla moo lay de fi mu bëgg moom nga jaarale ko loolu mi ngi am sëñ mbokk yi mi ngi am loolu mi ngi am kon loolu jàpp naa ne bu ñu xamoon li ak ceex di tekki ñu bari duñ ko ñemee ndax mbooloo mii seen ëllëg yow la ko yàlla laaj ku ci dëng te jaarlewu ko yoon waxoo ko ni ko war a wax bu ëllëgee yaay antal mas'ul ku xam loolu doo ci sawar bi ci des it nag mag ñu bare bari ñu ànd ak sëñ bi nag ak ceex ñu ñorewu leen noonu ñi gënoon a jege sëñ bi ñu ci bari ci ñoom ña leen toppoon bariwuñ de am nañ teraanga am nañ barke waaye mbooloo mu riir lang la ngeen topp leen danaa ci tudd kenn ku ñu ku ma tudd muy sëñ Daam Abdourahmaan la kenn gën ko jege sëñ bi kenn ëpp ko cër gi sëñ bi waaye yorutoon mbooloo muy réer te lu ñu fu góor yàlla jàgg àggoon na fa kon nattukaay bi du loolu nag jàdd yi moo waral nit ñi gëlbati ko nattukaay bi leneen kon loolu ci la bokk àgg na ci ñoo xam ne it ak mbokk ñoratu leen saa bu ñu duggee yu mel noonu bu leen seen mbokk jubee ñu suñu wan ko ginnaaw ne ko tey li ñu jàppee ñu mbokk rek mooy ki bokk ci ñoom te sëriñ mag bi nga xam ne mooy lépp day ko fonko ni mbokkam la naa faral di wax ne nañ xajale ñaar Cheikh Ahmadou Bamba ak Xadimul Rasul Xadimul Rasul amul mbokk ndax mission la da ngay wuy si woote bokk ci waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom amoon nay bokk te daan na dund mbokk kooku di ko dundal ba di leen ñaanal wajal jamee ixwati wa nasabi fii rahmatin yow mashdadi nasabi kon loolu it ñu bàyyi ko xel baax a baax bokk na ci it bokk yi li nga xam ne mën naa ne bi daala ci jeexiti woote yi la juddoo murit dañ ko xamee woon mooy ixlaas jëf ngir yàlla lépp looy def yàllaay tax doo sóor keneen di liggéey di jaamu yàlla di joxe addiya waaye lu bari bari boo koy jox yow yàlla ak sëriñ bi nga ko jox keneen xamul léegi nag lu xew yu baax yi def yëpp dañ koy siiwal ay caméra la ñu wut bu muy jébbalu ci àddee damay wut ay caméra ñu topp ñuy siiwal li nga def ngir lan yàlla tax nga di ko joxe sëriñ bi nga ko jox yàlla tax ci yàlla la koy delloo lu ci caméra yi doon yu tàmbali am la ndax lan day jur kenn ku ne ne man diw sàngam sama nawle joxe na nàngam man naa joxe lu ko ëpp yàlla tegul kenn lu mënu te yooyu day jur naa munaafasa xeyru sharifa ginnaaw diw sa moroom sa moroomu kilifa wala sa moroomu cheikha wala sa moroomu daayira la joxe na nàngam siiwal na ko wan nañ ko yow it fexeel ba bul joxe lu ko yées day jaral gudd gu fu ne ñenn ñi dañ lay lay ne dañuy dajale ci taalibe yi di ko joxe boo deful nii pour ñu xam ne lañ leen joxoon yóbbu nañ ko mbokk yi buñ demee ba ab sëriñu ku taalibe li nga jox mooy tax mu gëm ne joxe nga la la joxoon su boobu fu ñu jëm bu ñu demee ba taalibe bi day jàpp fii caméra woo ko yitu delloo ko day jàpp joxoo ko joxe ko kon yooyu jàpp naa ñu ma damay xel donte jamono àddina ko lu ñu ci mën a jublu li ñuy def ngir yàlla na na nëbb dañ lay wax ne asaka boo koy joxee li ci gën mooy bu ko joxee sa bopp ndax daw njistal kon naka bu àddiya moom it dañ ko joxe sëñ bi ñu ko jox yàlla tax ñu ko jox yàlla gis na ko sëriñ bi gis na ko yoonu kenn amu ci kon propagande soxlawu léegi nag bari nañ lu ñu wax dëgg yàlla ci yu mel noonu bàyyi ko xel baax baax mbokk yi jàpp naa ne mu solo euh, bi ci def su mu lay mujje mooy jàdd gi bokk na ci jeexitam nit ñi léegi màdd la ñuy teewoo ak mazhar seen kaw daal dana jàdd boo ko ne saayex murit mu ne ah loolu laa bëgg a doon de nuru murit ci xaw te ci biir dara ray murit nekku ci mu jenn koo jëflanteel nax ko koo ko fay koo jëkk mbirum ñàkku te boo soloo ba génn moom ñëpp ne murit loolu triche la bokk yi loolu am na ñuy triche di ko def loolu jur na nit ñi lay foofu la ñu ana sëriñ bi sëñ jiw daal moom mbooloo mu bari la lool xew daal moo dafa day ci nit ndax nattukaay bi mbokk yi mooy nit ñu bari kañ la nattukaay kañ la nit ñu bari nekk nattukaay ci yoonu Sëñ Tuuba kañ bi jamono ji yàqu yooyu mbokk yi ay inxiraafaat la yu wér yoo xam ne buñ ko waxee buñ ko waxut mi ngi ci suñu biir war nañoo dox nag pour jëm ci xam ne sëriñ bi moom jub gi mu indi woon yàlla ko tax a jóg ñi ci àndoon ak rabbaaniya moo leen boole woon rabbaaniya mooy yàlla rek taxu ñu def mag mu ne liggéey na lu ne gànd ko indi sëf dem wut lu mu dundee kenn xamut lu kenn xamut lu mu joxe ak ko joxe dañ daan xëy ci kër sëñ bi rek fekk fa lu jeex ku sëriñ bi waxoon ni déwoo ko fa indi kenn du yëg yow nag boo joxee addiya la nga am jàmm da nga wëcc yépp sëñ nàngam oto bi mu yor mag ko jox nangam nangam mag ko indil xanaa yàlla taxutul mbokk yi al aza wal man dañ ko fàtte xanaa ci sarax dañ koy tere woon ci lu baax lépp lañ koy tere kon yooyu nañ ko bàyyi xel te roy mag ñi baax ñi nga xam ne ñooy suñu royukaay ndax sëriñ bi kat ñim njabootam ak ñi mu yaraloon bopp moom yi ñu wax yépp kenn du ci def benn ba noppi am cës lay ci ñoom amul kenn ci ñooñu ku mën a wax ne lii may def maa ngi ko jële ci seen jiw kenn du ko wax moom koy sa xalaati boppa ndax li ma faral di wax mooy fétal daa tàmbalee xew lu tax nga def lii sama nii laa ko yëgee ay yëg-yëg dee suñu dox mbokk yi diine ci njub lay dox ak ni ko yàlla bi ci wax yu lay dox wax yu ak lu taxaw taxawaay bi ilham yàlla defal gaa ñu baax waaye sa yëg-yëg yi bopp boo ko toppee danal sànq te bare nag ñoo xam ne tey jii loolu moo leen sànq la ñuy def nur na rafet la waaye kenn digalu leen ko réew benn sëriñ mosuñu dégg benn sëriñ bu ko def dañoo jàpp rek baax na loolu nag lu yàqu moo ko yàq déglu ndigal te jëfe ko laa tafaalu shay'an bi xëyri idni ñu si jàngaloon léegi ana ndigal yooyu mbokk yi loolu laa bëggoon a wax maa ngi jégalu di baal salaamaaleykum wa rahmatullah